ëpp partout au Sénégal bu toogee fii nag du lañu mën a sotteel combat bi définitivement yéen yéen a ne góor de dëgër ñun ñëpp dañu war a ànd dëgër jublu Ndakaaru dem jàkkaarloo Macky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 keroog muy def plaidoirie dafa ne zéro tolérance pour Sonko à partir de maintenant zéro tolérance pour Macky Sall ma profité ci ci wax leen nag ni politiciens yi nga nekk fii ñu nekkal fii ci Casamance et qui rase les murs ñemetuñu sax dox publiquement dem jëli ay ministre Dakar dugal leen seen biir kër yi ñu leen di wax nii nañu nañu téye nañu benn ministre bu génn fii Ziguinchor xosi fi sax benn xare ñoom gëm naa ni ñoom dinañ génn Casamance waa politicien Ziguinchor ñu fanaan fii dootuñu fi yemb nous on n'a pas besoin de ministre parce que quand tu as le peuple avec toi tu n'as pas besoin d'aller importer des ministres et le peuple est là kon ce que je veux vous dire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 bu transféré le flambeau te teewul di ànd ak man gunge ma. man wax kuy patriote ci Sénégal nañu xam ni combat bi ragal du ko mottali de. fit moo koy mottali. bu bu ñaari la ci mooy tëll ku nekk daw jaar nii loolu rek problème bu ñu bëggee mu sotti il faut ñu ñeme li ñu def luñ ci rek xam ni lii la.